rajo suñu Kër FM ngir gën a jege askan wi. ñu leen di bàyyi xel saa su nekk. yéen a ngi déglu suñu Kër FM ci www.suñuker.com. sport, culture, politique, éducation, société, santé, religion, économie. rajo suñu Kër FM ngir gën a jege askan wi. ñu leen di bàyyi xel saa su nekk yéen ngi sunu cœur FM ci www.sunuker.com. xibaar yi ci sunu cœur FM. Nous kër FM Hibari. FM. jaajëfal leen ci ànd beeg teewlu bi seen rajo sunu kër FM xibaar yi digg bëccëg gi gannaaw ba fanweeri simili bootoo ci benn waxtu li fi gën a fës yi xibaar.

gratuite ngir jàppale askan wi rek ci li nga xam ni mooy faju gi ba mën a jàppandal waaye itam di ñaax ñu bàyyi xel ci li nga xam ni mooy Covid 19 bi Fallou si la lañ ci fas yéene àndal ci yére xibaar buñ ca noppee daan jeexal. pàcc ku njëkk gi ak wàccaayu fête de fin yi nga xam ne nag ca marché central bu Kaolack ñay jaay lii di jouer ñoom itam na gisuñu ko ba tax ñu daal di yokk njëkk yi daa ngeen teelu jàngat bi ak Fatou Kiné Sow ci yére xibaar ñaareelu xaaju xibaar yi ñetti ponk lay doon xibaar yi biti réew la ñu koy dooree toftal ci xibaar yi tàggat yaram bi ëttu yëglekaay yi xëy tey moo koy bural mbokk yi ponk yàngook bu ngeen taaxir loo ñu yaatal ko xibaar yi ci suñuy kër feggoog Elimane Birahim Ka ci xarala gi di leen dégtal yi la xibaar digg bëccëg gi euh, mécanicien yu bokk ci réseau pour la promotion des artisans fii ci diwaanu Kaolack daal nañu amal ak janoog taskatu xibaar niki euh, gaaw gi ñu génn di ñaawlu li nga xam ne nag moom lañ leen déger piiree ci seen bërëbu liggéeykaay yooyu leen ñu yàkkoora sax dañ leen koy defaral daal di koy yëkkati teg ko ci ay loxo homme d'affaires ak ay euh, politiciens ci fàttali sax ñu ngi leen génne woon ci yooyu la bërëb fanweeri fan ak benn ci weeru décembre atum 2019 eh, bi ñoo génn te fañ leen recasé eh, jamono ji ñu dafa nekk bërëb yoo xam ni bu eh, nawetee day daal di taa ndox mu Mouhamadou Sinior Cissé ci jàngat yi. gannaaw bañ yëgee ni siit bi nga xamante ni moom lañ doon liggéey te ñu jëlee leen fa mu fare ci littoral bi jàkkaarloo ak garage yu Nioro bu njëkk ba mécanicien yu bootu ci réseau bi ñu duppee Airpac daal dina ñuy mer ba fóot Abdoulaye Diankha njiitalu kuréel bi nu ñëwaat ci doxalin bi nga xamante ni kilifay diwaan wi daal dinañ koy def. ngeen daaw 2020 li fi xewoon aménagement bi ñu doon def ci région yi ñu xëy dëgër pire ñu ñëpp benn jour sans sommation xëy rek gëlee ñu fi ñun ñëpp ramasser fi ba set ne fii dañ ko soxla dañ ko espace vert dañ ko def mu rafet dafa am leneen lu fiy jaar ah ñu nangul leen ko ab ak yar ak i teggit ñu dégg ne chute bii ñu nekkoon fii ñu taxaw nii tey tey am na ay doomaram ko jox may laaj ndax dëkk bi dafa fu mat 325 personnes fu ñu nekk di fa daan seen doole ñu xey jëlé len fi jox ko lu matul fukki nit te sans ñu aviser len wala ñu yégal len ne leen fii ngeen nekkoon dañ koy joxé loolu dañ koy ñaawlu loolu ñi ñaawlu mom momé ci ay kaddom mi ngi xamné sax né gannaaw bañ leen jëlé ci bërëb bi nu mel jaraafu diwaan wi di Mariama Sarr moom moo leen jappalé madame la maire ne ñu comme que jëlé nañ leen fi dana leen jox chute bo xamné dana leen ko rek dana leen fa recaser mu ci gannaaw garu tier bi effectivement la waxon def nako ko yóbbu nañu ci benn chute mais chute bi ñu yóbbu fofu place ndox la commencé won nañ ko remblé bu doon 100 la 20 lañ ci defagum pendant 2 ans ñu ngi tok di accéléré. lu ëpp ñetti téeméeru chef de garage nekkoon ci site bi ñoom ñoo jamono ji ñu ngi sàkku ñu daal leen di ràmbaleel barab bañ nekkoon Abdoulaye Diankha. lu mat ñu ngi foog di liggéey di daan seen doole yóbbul seen njaboot. ñu xëy jëlee leen fi. ba ñu ngi dugg bëgg dëgg 2022. le 31 janvier daaw. déggoo ñu xeex. déggoo ñu ñaxtu. déggoo ñu takk ay morceaux yu xonq. yara ki tegil la ñu xamee artisan lañ defar la xam xamul dara lu yàq waaye artisan ku

wooye la xibaar yi wax ak conseil consultatif ñeel li nga xam ni mooy quartier yi ki nekk seen njiit eh, di wuyoo ci trop Ibou Thiam moom itam daal nañu amal ab bés jagleel ko wàllum sensibilisation li nu mel ña nga ko amale woon ca salle de délibération eh, ca bopp moomeel bu Kaolack tomb ba nga xam ne nag moom lañ doon waxtaane de état civil mission enjeu ak li nga xam ni mooy perspective waaye tam di xamle ni mooy yi nga xam ni fas nañu ko rek eh, ci table ngir dimbale amuñu kayitu juddu wala sax ñi nga xam ne seen acte de décès dafa leen réer wa ilaa sax ñi def wàllum mariage ñoom ñëpp daal nañ leen di dugal ci boobule bés jàngat bi ak Cheikh Tidiane daa soxo ci salle de délibération bu nekk fii ci boppu Mamel bu Kaolack la ñu doon amal ab journée de sensibilisation nga xam ne thème bi mooy état civil taxawaayam ci askan wi bu Thiam nekk conseil consultatif de quartier di si indi ay leeral. acteurs yi nga xamante kayitu décès déclaration de. C'est bon. waxtaan jukki acteurs yooyu noonu ku ci nekk euh, nga ñëw toog wax li nga xamante ni moo la jaaxal ci état civil ba tey ci boobu la ndaje àndoon nañ ci officier d' état civil bi ngir tontu ay laaj yi nga xamante ne askan wa fa daje woon dañ ci am ay jafe-jafe ci bu ñu ut ay këyit ki nga xamante ni dafa dund euh, bokkul ak ki ko jàng rek théoriser ko moom daf ko dund yàgg kaw la ñu ne nag na nekk un débat ba nga xamante ni interactif muy wax def exposé ba noppi nit ñi poser ko ay question li ñu jànkonteel seen indi comme Vous bu ko defee mu apporter si ay solutions yu précises dégager ay pistes de solution ci fàttali boobule dajee ay agents municipaux délégués de quartier ak ay bàjjenu gox yi nekk fii ci diwaan bu Kaolack teewe nañ ko lii ak euh, journée de sensibilisation boobu ñeel wàllum kayitu yi ak yeneen yu la mel bi la yoon ak Alenia di euh, ki nga xam ni moo jiite état civil bu Kaolack daal di dikkaat ci solos li ni waaye itam di beral cant ak ngërëm ki nga xam ne nag mooy président euh, bu tribunal bu grande instance bu Kaolack ci jàppandal gi nga xam ni daal na koy def ñeel li nga xam ni mooy day maye kayitu juddu ñi nga xam ni jotuñu ko woon am Alenia ay kàddoom na ko Cheikh Tidiane Dansokho comme ni ma ko waxee sànq ci biir loolu président tribunal la euh, waaye président tribunal bi ñu nekkal moom nit ku baax la nit ku social la nit ku xam li ko fi teg la nit du avocat sax dafay rëy ndax dafay mel lu jafe la en tout cas man ñi ma ko siqaloon daal maa ngi gërëm ibu bu baax a baax parce que kilifa yi sax dajal leen yombul association des sages-femmes euh, le collectif des délégués de quartier les bàjjenu gox lolu man su ko bëggoon sax xam naa ne du yomb mais lolu maa ngi koy gërëmee parce que loolu rek lañ ci jubboon di jël engagement ci turu mairie bi ne nu mu gën a décentralisé wu ñun bëgg nañ pare nañ it quartier yeeg à la base fu mënti nekk ku ñu ci oo ci waxtaan bu mel nii sawar nañ ci dinañ ñëw te dinañ la waxtaanal donc ñu organiser ko ci délégué de quartier yi bokk ak population échanger parce que boo waxee ak nit ñi rek da ngay xam ne li ëpp ci nit ñi ñàkk xam la rek waaw ñàkk xam moo indi lépp mais vraiment état civil du lu koom suñuy kër FM waxoon nañ leen ko ci bopp euh, xibaar yi association pour le développement du Saloum ADES ñoom itam daal di nañuy amal ab bés jagleel ko wàllum consultation gratuite ngir rek dimbale askan wi ñu mën a faju ci ni mu gën a yombe te duñ ci dépenser lu bari ci loolu sax ab porox ndool la ki nga xam ni moo jiite boobule association daal di ut ngir rek cant ak ngërëm ñi nga xam ni ñoo jàpp ci li mel laata muy ñëw dekk di sàkku ci ñi nga xam ni ñooy population bu Kaolack lii di geste barrière yi nga xam ni que docteur moom la digle ngir rek ñu mën a faagaagal lii di Covid 19 fàllu gala si la ci leeral yi. wàllum faj meeg faju mi nekk lu am solo ci diwaanu Sénégal li ni mel la association pour le développement du Saloum daal di xam ba di may niki ci dimanche yi dañu génn ab bëccëg boo xamante ni dañ ko doon jagleel ay consultation gratuite jagleel ko askan wi nga xamante ne nii ñi ngi yeewoo fii ci dëkku Mbose kumba jigéen bi ah, di Kaolack Baba Samb moom mooy seen njiit. association bi dafay yëngatu ci ay valeur yu bëri aussi tam dañuy yëngu ci wàllu santé donc ci siège boobu la ñu waxoon tamit pourquoi pas parce que amu am nañ ay spécialistes yoo xam ne ñu ngi nekk dans la santé lu tax mënuñ leen utiliser pour que ñu ñëw jàppale nit ñi ci feebar yooyu nga xam ne mooy hypertension ak diabète nga xam ne ak population bi ñu ngi koy jàmbat day nekk dépistage dafa nekk loo xam ne ci ñoom ci seen conseil nekk na loo xam ne moo gën a pertinent parce que olof day fagaru moo gën faju donc day baax ku ci nekk ngay dem di seet say tension di xool sa niveau sucre say en soit peu de pallier aux éventuelles maladies am santé dafa nekk lu am solo te xaw na jafe trop trop ci population bi donc que de besoin bu ñu mënee jege population bi pour jàppal leen ci loolu rek dañ koy def jëf ji ni mel ñu amal ko ci contexte bi nga xamante ñi ngi jàmmaarloo ko mbas mi di covid 19 tax ba kookee nga xamante ne moom moo di njiital ADS di wax ne kuréel googee nga xamante ni mi ngi ko jiite ñi ngi ciy bàyyi seen waar bu baax a baax bi moom mën nañ ne problème askan bi yëpp la ndax loo xam day wàlle te bàyyiwul kenn amul xajar seen jàpp naa ne képp ku war a mën a jóg pour sensibiliser pour taxawaay war nga ko def mu raw nag association moo taxoon sax daaw lii ñu def ren defuñ ko ndax pandé bi def nekkoon na fi ba nga xamee ni amoon na woon dañ doon ragal a ko moo taxoon ñu bañ koo def mais ren bien que mu ngi fi mais ak conseil spécial yi dañ ne war nañ mun a def dépistage moom baba samb yamu ca ndax mi ngi waat sax askanu siin ak sàllum rawatina bu sénégal ngir ñu daal di sàlloog li nga xamante ne nii moom moo di mesure barrière yi suñu bëggee nee na mbujj rek ci li nga xamante ne nii moom moo di mbas mi di rawatina ci quatrième vague bi nga xamante ne jamono ji mi ngi yërndoo population bi xam ne covid 19 mu ngi fi ba tey te yàlla dafa def aussi li ñuy wax quatrième vague moom daa daanaka mu ngi fëgg ci bunt yi te li koy mën a jële fii rek mooy vaccin yi donc di lancer un rek à la population waaw di leen ñaax pour ñu mën a dem jël vaccin yooyu parce que feebar boo xamee ne loolu kese moo la ci war a muccal yaakaar naa yi dina nekk loo xamee ne dina tax lii mu nekk suñu ginnaaw ba ñu ngi koy nettali daal ci fàttali sax bëccëg boobee nga xam ne ñu ngi ko jagaloon ay consultation gratuite te waa ADS daat koy amal la mbooloo mu takkoo takku daal nañu fa doon ngir daal di seen i consultation suñuy Kër FM ñen fukki simili ak ñaar moo bootu ci benn waxtu dem ba diwanu euh, fi nga xamni moy Kër Baka bok ci département bu Kaolack ci village ba ñuy wax Sikatrum ñoom itam lii association ARS amicale les élèves et étudiants ressortissants de Sika ñoom itam daal nañu amal ap bés jagleel ko ci li nga xamni moy mooy sen 72 heures yi ñu don amal foofule ci biir dëkk ba lata ñuy wax ci li nga xamni moy solos bobu boobule bés ak autorité yi nga xamni ñom moom lañu ko parrainé woon te ñoo teewe woon boobule bés bu xam ndox ci jàngat bi gannaaw ba ñu doon ndar keppal seen i 72 heures nekk ni démb ci dibéer gi ñu génni Sicap Rome nekk ci département bu Kaolack ca commune bu Kër Bàkka seen ARS boobee di amicale étudiants et élèves ressortissants bu Sicap Rome mbooloo bu tàkku la ñu fa ci dibeer gi ñu génni ñu jël seen i bés boobu nag daal di ko dippee ay autorité ñu ñu si gën ràññeeku sax di rek jàngalekat ya di yeewoo ca Sicap Rome ñu rafetlu nag mbir moomee bu ñu sukkandikoo ci seeni porte ca l'école ya ndax école mooy mooy wéeruwaay. bu tey nekk milieu boo xam ne ñëpp a ko war a dem doomam école yaa ngi tardé parce ku fi tekki ku fi mën dara école moo tax nga mën dara école moo tax nga mën def yenn seeni chef de village di ñaax xale yi ñu gën a jàppante ak njàng mi. élèves yi ñoom ñooy jàng si kàtturum da ngeen war a mobiliser jéem a porte parole lu jàngalekat yi daal di yegg si di xamle ne rek bu ñu noppee nañu gën a jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo di école primaire yi ñoom itam ñuy gën a mun a ñongal seeni njàng. su paree fexe leen ngeen mën a jàppale école école élémentaire lañ kon nag jaadu na ngeen mën a jëfe au moins copier ci école nekk ci département bu Kaolack ci commune bu Kër bakka seeni 72 heures nekk nu démb nag lañu ko doon tëj mu mel ni sax mbooloo bu tàkku lañu fa nemmeeku autorité yi waaye itam ñi nga xamante ne ñëw nañu bàyyeekoo ca dëkk boobee di Sicap ngir rek bokk ak ñoom mbégte bi tàccu fo ree ambiance desul ginnaaw benn yoon ci boobule bëccëg. Pramandor dañuy desandi ca Sicap Rome bi la yoon ak ki nga xam ne nag moo yor seen kàddu di njiital ARS eh, di wuyoo ci turu Bounkounta moom itam daal nay cant ak ngërëm ñi nga xam ni ñoo bokk ci eh, boobule ARS di eh, ñi nga xam ne ñooy alliance des élèves ressortissants de Sicap Rome waaye itam laata muy àddu jëmale ci li nga xam ni mooy élection locale yi ñu dëgmal ñeel li di ñaar fukki fan ak ñett weeru janvier atum 2022 du Boukounta dégg na ko xamandoo. Lairesse ñëpp a ko moom te aussi Lairesse ñëpp a ko ñëpp a ko moom donc di a xamante ne que au moins 2019 euh, ARS mu ngi woon am parce que euh, tout simplement ñun ñëpp xamoon nañ la fi bi moom moo ñu tënkoon ci lépp ba tax na ay activités yoo di lancer après que coronavirus bi que ça soit wala nekk fi ñun ñëpp li nga xamante ne que mooy éviter aussi gaañ ñi nga xamante ne que au santé li nga xamante ne aussi loolu lay lancé suñuy autorité ak suñu yaay ak jeunesse bi nga xamante ne aussi ñoom ñoo ci autorité yi euh, yaakaar naa ne euh, li ngeen ak li ngeen di def aussi ci yeneen gox yi ak ci jeunesse bi mooy Kosaar ci maire bi aussi xam nañ bu baax que ne que ñu ñëpp ñu booloo doon benn xam ne que kat dëkk bi ñu ñoo ko moom que ñoo ngi jublu ci loo xamante ne juste élection ñu ñëpp xam nañ nu muy demee ak bi ngiiroo bi bi mais dañ war a xam ne que lenn politique lu koo xamante ne que kat euh, yow la ko yàlla jagleel nga xamante ne que aussi yéen jiite na ngeen xam ne que ñi ngeen jiite wala ñi ñu ah, ñi ñu di àndal ay ndaw lañu dañoo am ay avenir li nga aussi moom la ñu war a def ñu ñëpp que mooy ñu ubbi xool yi boolowaat doon benn te gëm na que aussi fii ñu ñoo fi nekk li nga xamante ne aussi kenn mënu fi fal nit wala kenn mënu fi tànn kenn kenn yàlla ci boppam moom mooy xool ci ko neex moom mooy xool ki xamante ne moom moo fi war a nekk mu nekk fii ba tax na ñun ñi nekk am na aussi loo war a wax mais bu boobaa bu jotee ñun ñëpp nañ ko def daakaam def ko ci fair play xam ne ko ku fi nekk nañ jàpp ke ne yàllaa ko fi dëkk te ñu ñaanal ko aussi mu jiggoo te liñ bëgg aussi yaakaar bi tax na maanaam bu ñu teg ko foofu noonu na xam ne ko na ko jéem a motal nit nag mënul dara mais nay jéem bu jéemee peut-être xëy na yàlla dina sotti leer message yooyu loo nekkoon la xamante ne donc moom laa bëggoon lancer pour ñëpp dégg ko. Sunuker FM. jeexal pàcc bu njëkk ñeel li nga xam ni mooy xibaar yi dégg bëccëg gi ak wàccaayu fête fin d'année yi waajur yi ñoom kenn ku nekk rek day bëgg di ah, jox li nga xam ni ah, ñooy seen i tur tànk ay cadeau ni mel dafa mel ni nag dafa xaw a raar ah, ci li nga xam ni mooy marché bi ba tax sax ñi yëngu ci wàllum jaay ak ci jouet yooyu yokk li nga xam ne mooy njëkk yi ñoom waajur yi nag sàkku nañ ci ñoom ñi leen ñu daal di wàññi lu mu gën a gaawee ci li nga xam ne mooy prix ndax xale yi mën a neexal fenub fet eh, jàngat bi ak Fatou Kiné Sow Thiam suñu ne fin d'année waajur yu ci bari di bëgg ay cadeau ngir bégal seeni doom ren ji ñu nemmeeku ñàkkum foyekaay yooyu ci marché bi suñu sukkandikoo ci kàddu jaaykat yi ñu fa fekk maam góor sàmb jeux yi de moom ren lag yu ci bari daa xaw a manque jeux surtout jeux yu mag yi xam nga ñu doon voyager léegi daanaka dematu moo tax léegi daanaka booy wut ay booy booy importé jeux yu yaba may rek ngay indi moo tax yu baree bari àdduna bi waaw covid waaw moo tax yu bëree bari xaw a manqué ak gay yi aussi seen conteneur yi xaw a tardé ñu fekk ko mu nekk ci waxaale bu métti waajur bi di wuyoo ci turu monsieur Faye ne foyekaay cher na lool dama ñëwoon ci marché bi pour wut ay cadeau pour sama doom yi bégal leen na xam nga fête bi daanaka ñoom ñoo ko moom chaque événement bu jot dangay ngay gis ni jaaykat yi dañuy xaw a yokk njëg yi loolu moom koy déploré bu baax jaaykat yi dellu siwaat di wax ne ñu ngi gis client yi benn par benn non surtout sax yu góor nag yu jigéen ñi daal moo xaw a am te dafa seer xëy na ndax ñun moom dem nañ uti ko mais gisuñu liñ gis rek lañ jënd indi client yi moom tuuti tuuti rek par rapport ak at yi passé moom naa xaalis moo amul nag xale di moomin ñu war koo bégal li ni mel tax ba waajur yu ci bari di def tout ngir am ci foyekaay yooyu bégal seeni doom ren ci kado yi ñàkk lool ci marché bi tax ñu yokk njëg yi client yi di sàkku ñu yombalal leen kado yi ndax xale bu nekk mën a am kado Fatou Kiné Sow cant ngërëm ñel ko ci élément bu am solo boobu ñeent fukki simili ak juróom-ñeent moo bootu ci benn waxtu ñu wéyal ñaareelu xaaju xibaar yi. xibaar yi ci suñuy kër FM. ñaareelu xaaju xibaar yi des koy doore ak xibaar yi biti réew di ci ànd ak Ndeye Roqe Sall dal leen nag jàmm si xibaar biti réew yi dañu koy dooree rek nag ak réewum Guinée foofee nag ki nga xamante ni nii moo di ilimaanu jëwriñ ya di Mohamed Biavo kii daal nay jébbal li nga xamante ne nii moo di feuille de route am ki nga xam ne moo di njiital transition ba di colonel Mamadi Doumbouya moom mi nga xam ne sax daal di nay yeesalaat ab kóoruteem ak kontaanteem ci gouvernement bi waaye nag boobalee feuille de route dañu koo teeroo rek ndax ñi nga xamante ne ni ñoo faree ci langue politique bi maanaam kàngamu politiciens yi nekk diwaanu Guinée ñoom ñu ngi woon sax dañoo rek wuutee ay gis-gis ci feuille de route boobe ndaam sax nga xamante ne ni programme ba ñu ca daal di xaatim dëppawut ak benn yoon li nga xamante ne nii moo di programme transition bi. wéy di xibaar yi ba fële ci république démocratique bu Congo foofee nag ab congo la ñu fa amaloon ni kii bés bi nga xamante ne nii moom la ñuy féetee li nga xamante ni moo di feetu Noël ñu amalee woon ko nag ci dëkk bi ñuy wooyee benn nii mu faree ci bët gànnaaru tëkk bi ñu woyee kifu boobalee cong nag daal nay def juróom-ñetti doomi aadama yu ci ñàkk seen bakkan waaye nag ñaar fukk yoo xam ne dañu cee jëlee ay gaañu gaañi li ñu mel ñu ngi ko xamlee niki démb ci dibéer gi yemoo woon nag ñaar fukki fan nag juróom benn ci wetu ko décembre bi loolee rek moo waral ki nga xam ne moo yoro kàddu gouvernement gu kongo waaye tam ki nga xam ne moo di gouverneur militaire faree fële ca kifu ñu daal di taxaw nag janoog ñi nga xamante ni ñoo di taskatu xibaar yi Dakar ngir leeral lépp li nga xamante ne nii rek moo tukkee ca cong yooyee dem nañ sax ba xamante ne ne jooyee cong ñu ko amal ñoo di terroriste yi faree ci parti islamiste xibaari biti réew yi day woy ba tey daal di dem fële ca diwaanu Burkina Faso foofe nag ab deuil national la ñu daal di fay tëral lu toll ci ñaari fan ki ko xam ne nag moo di njiita xew ma di Roch Marc Christian Kaboré gannaaw bi nga xamante ne nii rek daal di nañuy faat lu toll ci ñeent fukki doomi aadama ak benn ci ab cong boo xamante ne nii ñi di groupe jihadiste yi ñoo ko amaloon ci ay commerçant yoo xamanteni ni armée bi mo len doon yir ngir ñu amal seeni ay dem ak dik ñom ñak ñu daal di dal ci ab embuscade bo xamne ne daal di woon ay am ni kii alxamis bi ñu wessu yemu woon ak ñaar fa nak ñet ci wéru ko décembre bi ñom ñi nga xamne sax dañu doon rek yobbu ay dundu ci commune bi ñu wooyee Titao boobalee dekk sax nga xamne ngir nga dugg fa faaw nga dugg fa ak lu leer na ñi ndax rek ñi nga xamanteni ne ñoo faree ci l'armée bi ñoo ko yir di bi ti réew yi dañu koy jéxalé fële ci réewum France fofé nak lu tollu ci téeméeri junni contamination yu yess mo daldi di am ci ayu bëss bi ñu weesu fofé ci diwanu France ci variant bu bëss bi ñuy woyé Omicron lolé rek mo waral ki nga xamanteni modi moo di réew di Emmanuel Macron daal di dajale ñi nga xam ño faré ci gouvernement bi ci ab vision de conférence ngir ñu amal ab conseil de défense waaye tam ñu war ci tek li nga xam modi di conseil des ministres niki altine tay ji bu fukki waxtoog ñaar weesoo ngir rek ñu saytu ak naka lañuy def rekk ngir teg ay mesures yu yees rekk bala ñoo amal li nga xamante ne nii moo di feetu at bu yees bi ñu dëgmal xibaar bi tiré wi jaadina fiy buuree Ndeye Marie Dabo di leen ñaanal kendalug jàmm ak salaam. canda ngërëm ñen la ko moom Roxee Sall ci xibaar yi biti réew yooyu dañuy daal di àddu jëm ci li nga xam ni mooy xibaar yi tàggat yaram. xibaar yi ci suñuy kër FM. xibaari yi tàggat yaram dañ ci daal di dalal coach Abdoulaye Senghor maa ngi lay nuyu. delloo siyaar soxna Ndeye Mbaye nga am jàmm. ñu ngi sant alhamdulilah. ay ca xibaari tàggat yaram dañu koy doore ak championnat local Ligue 1 professionnel ñoom itam ah, seen juróom-benneelu wërngal. mi ngi noonu juróom-benneelu wërngal Ligue 1 professionnel nag ñu doon amal ah, jërëjëf ah, jongante ni kii ni week-end bi nag jàpp leen sax Dakar Sacré-Cœur moom moo daan Ndiambour bu luga ñaari bal ci dara nag Casa Sport daal di am ndam ci kaw cnfc excellence benn bal ci dara jaraaf nak jàpp leen ni moom daan jàmbaax ñaari bal ci dara nag US Gorée nag moom daal dinay am ndam bu yaatu ci kaw Mbour Petite Côte ñeent bal ci dara di daan ñi di waa AS Douanes benn bal ci dara nag Linguère daal di am ndam ci kaw AS Pikine ñaari ci benn nag Teungueth FC moom moo am ci kaw Guédiawaye FC ñetti bal ci dara nag gannaaw sax juróom benneelu wërngal boobu la sax classement bi ci Ligue 1 professionnel bi nag niki la daal di tëddee moom moo daal di jiitu am lu toll ci fukk ak ñaari poñ nag ki ci kawam di Teungueth FC am ci lu toll ci fukk ak benn nag jaraaf moom mooy ñëw ci ñetteelu place bi am fukki poñ ci lanterne rouge bi nag dañ fay daal di nemmeeku équipe AS Douanes ak ñii di waa Ndiambour nga xamante ne dañuy télé euh, yi bu ñu jógee ko foofu dañuy daal di wéyandi xabaar yi ba tey rek ak ligue de professionnel nag ak résultat di euh, nemmeeku ni ki ni weekend bi ba tey nag ak juróom-benn lu wëngal boobule Sonacos nag jàppale ni moom moo daan Thiès FC ñaari bal ci dara nag Kër Madior moom daal di ne ndërmelu ci diggam ak Duc mi ko daan benn bal ci dara nag US Ouakam moom daal di témbo ak ñi di waa Renaissance ku nekk am benn bal gannaaw sax boobu la journée itam ca Ligue 2 professionnel nag jàppale ni Stade Mbour moom moo daal jiitu am lu toll ci fukk ak benn poñ Sonacos tofoy ci kawam am lu toll ci fukk ak benn poñ nag Renaissance moom moo ñëw ci ñetteelu place bi am fukki poñ ci lanterne rouge bi maanaam bas di tableau dañ fay daal fekk ji UK Sport ak Amitié FC soxna Ndeye Marie. mu ngoog euh, coach gaañu gaañu bi nga xam ni am na ko ba club am bi di Watford ñoom itam daal ne nag daal dinay jëlee gaañu gaañu ci seen jongante bu doxoon sa diggante ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa West euh, ci euh, début de saison boobu la sax moom Ismaila Sarr ñu ngi daal di euh, lam-lame ndax dana bokkandi ci Coupe d'Afrique bi ñu dégmal fële ca xew ba Cameroun nag moom Ismaila Sarr club am bi ni ki di démb nag daal dinay fësal ne li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu état de santé am ba léegi nag pareeguñ ngir ngir gisandiko ci eh, terrain yi nag loole nag ñu ngi ko war a xaarandi rek ci eh, diggu janvier wala sax ci njeexintal weerub janvier mu doon li nga xamante ni day gàllankoor bu baax a baax suñu gaynde yu Sénégal nga xamante ni eh, jamono ji tembe ñu ngi dëgmal boobule Coupe d'Afrique des Nations naam dana ci bokk du ci bokk ak lu ci mënti doon loole nag day daal di dépendre maanaam sukkandiku ci li nga xamante ni moom mooy état de santé moom Ismaïla Sarr nga xamante ni tey jii rempart bu am am solo la ci gaynde yu Sénégal soxna Ndeye mari mu ngoog dañuy desandi ak Euh, coupe d'Afrique des nations pour euh, Afrique euh, équipe Zimbabwe moytu ko ci suspension bi suspension politique pour équipe di Zimbabwe nag gannaaw sax ba nga dissoudre fédération ci ay agression sexuelle ko ci arbitre wala sax corruption wala guerre ci fédération nag tax rek di dissoudre Zimbabwe. ba bi ni mel ndax sax ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk football wàllu Afrique nag ñoom ñu ngi daal di euh, saytu bu baax a baax yooyu la euh, jëfin nag tax rek euh, buñ moytandikul Sénégal Guinée ak Malawi ñoom danañ amandi adversaire bu bees ci seen poule boobu xel yëpp daal di daw ci nga xamante ne moom mooy réew Afrique du ni moom nag jotul woon validé tikam jël place su Zimbabwe lu ci mënti doon danañ xaarandi rek menace yi nga xamante moom mooy daal di ci équipe Zimbabwe boobu ndax dana bokkan rek du dee du bokkandi li ci mën ci doon Afrique du Sud nag moom lañ jàpp ne moom mooy réew bu ko mën a remplacé mu ngoog dañuy daal di wutali réewum tugal ak jongante yi jotoon a am ci li nga xam ne mooy weekend bi niki weekend bi nag ca diwaanu Angleterre nag li nga xamante ne moom mooy seen traditionnel Boxing Day nag ñu ngi ko doon amal nag naam mbas mi eh, di coronavirus nag am na ci ay njeexintal waaye teewul benn yoon nag ay match ñu ngi eh, koy daal di jouer eh, ba tey rek jàpp leen sax Manchester City moom daal di nay daal Leicester juróom benn bal ci ñett nag Arsenal moom daal di nay daal ñi di waa Norwich City juróomi bal ci dara nag Tottenham daal di daal ñi di waa Crystal Palace ñetti bal ci dara nag Southampton jàppale ni moom moo am ndam eh, ci kaw West Ham ñetti bal ci jaar ci ñaar nag Chelsea bu Thomas Tuchel daal di Aston Villa bu Steven Gerrard ñetti eh, bal ci eh, benn nag Brighton moom moo daal di tëj peloton bi ak ndamam lu am ci kaw Brentford ñaari bal ci dara soxna Ndeye Marie. mu ngoog dañu koy jeexalee ak lamb ji war a dox ci diggante Modou ak Oma Ama Balde. mu ngi noonu gannaaw sax bu ñu aéroport yu bëri nag ñaar ci li nga xamante ne moom mooy face à face to am nag saa ñu ko jàppee nag mu am ab gàllankoor bu ci eh, daal di eh, dugg nag loole nag doon loo xamante ni eh, nakari na lool kii di promoteur bi di ko laay nag moom sax ñu ngi koy xaarandi ci ab conférence de presse bu mu war a amal nag dox diggante moom ak sele sele bu ndaw nag nga xamante ni moom dañ koy daal di boole ndek roi bi di Modou Lo nag ñu nar a def li nga xamante ne moom mooy ay conférence de presse rek ñu mën a amal ñu bañ amal ay jàmmarloo wala sax ay xeetu li nga xamante ne moom mooy violence ci euh, li ni mel waaye nag jàpp leen ni boobule combat nag ñu ngi koy daal di euh, programmer fukki fan ak ñett ci weeru mars 2021 soxna Ndémari xabaaru tàggat yaram daal buur cant ngërëm ñeel na la. cant ngërëm ñeel na ko moom coach Abdoulaye Senghor ci xibaar yi euh, tàggat yaram yooyu yu taaxirlu ñu dikk ak yéen ci ponk bu mujj ci yële xibaar. xibaar yi ci suñuy kër FM. ponk bu mujj ci yële xibaar ci suñu kër FM euh, day daal di doon li nga xam ni moo ëttu yëglekaay yi xëy tey dañ ci ànd ak Mouhamadou Junior Cissé dal leen ak jàmm mbaa na nga ca train express régional jamono ji kañ miñ sa waral ba yéenikaay yu bari ni tey tàq ci rib daal di koy xëy yéenikaay bi di lii quotidien naan ñu gannaaw juróomu at yoo xam te ne coow leeg mbaboor li daal na koy topp ak i rebord ak i rebondissement enfin train express régional bi dina daw ni tey ñaar fukki fan ak juróom ci mim sur Sud Quotidien ñu mise en circulation wu terre, bi niki tay altiné altine lañ koy door ab train bo xamanteni 1000 mille attentes Manam xaar yi daal Niel, bari lool ñeel train express régional bi l'observateur n'a ñu TER bi kañ à terre Manam ci gàttal dina taw ni tay ku gañ ca def manam copar gañ ca ak report yi nga xamanteni ni daal dinañ ko ci ku ñeel date yiñ koy lancer ba ci sax askan wi nga xamanteni ñom ñoom dinañ leen di yoral seen copar war leen indemniser bi ci yéenekaay di sud naan ñu procédure indemnisation yi nga xamante ni dooroon nañ ko am na ñoo xam ni ba tey fayaguñ leen seen xaalis ñett kàcce sa diwaanu caaroy teer bi dal dina kay emporter ñom ñooñee fayu ñep seni koppar lu tollu ci 780 milliards hors taxe nga xamante 76 euh, milliards mom lañuy amalé libération ou emprise 10 milliards d'accompagnement accompagnement ou lii di projets sociaux yi cinq entreprises sénégalaises dal dinañ len di impliquer ngir 8500 emplois nationaux nationaux loolu la ah, ci biir yéenikaay bi di lii quotidien Mansour Faye naan ñu teer bi kañ impact bi mu mucc ayib la tax na sax ba noone fukki fan ak juróom yu njëkk yi dañuy maye li nga xamante ni moom moo di teer bi maanaam képp ku ci dugg doo fay dara gratuit lay doon te doo am dara looy tiit mu mel ni que ni ci miim réew ñii di góor jigéen ñi kañ amatuñ lu ñuy tiit ndax am na ñoo xamante ni ñoom leen di jàppal tànk yéenikaay bi di Walf Quotidien ci noonee la xëy niki tey naan ñu criminalisation homosexualité majorité dinañuy envoyé kujje politique yi ñu dem doxantu ji maanaam dañ leen nelawal ndax lii di wootub projet de loi bu ñeel lii di góor jigéen yi ci mim réew ñii di majorité bi dañoo teg seen tànk ci loi bi maanaam ci gàttal bëgguñ kaa woote Ahmed Khalifa Niass ci biir yéenikaay bi naan ñu activiste islamisant yi doonuñ ay marchands d'illusion yéenikaay bi di enquête naan ñu majorité bi kañ lank lañ def ñoom ñooñee jamono ji boo moyul projet de loi bi nu mel daañu ko jël dugal ko ci pouvoiru assemblée nationale yi ndax parewuñ sax ngir woote lii di criminaliser mbirub góor jigéen ci mim réew ànd sàmm jikko yi ci biir yéenikaay bi jàppoon ne ñoom kañ seen mbir du laal suuf ndax baliser nañ terrain bi wante rek daal dinañuy am lu leen bett lool ñeel woote wu projet de loi bi nu mel ay miiru ñing bu APR naan ñu législation wu Sénégal bi daal dinay tranché ci sujet bi nu mel waruñu woon sax nekkaat di ci ñëwaat te législation bi jarul nu mel député bi jàpp ne li nu mel ab faux débat la maam Makhtar Gueye naan ñu luwaa bi nga xamante ni moom moo di criminaliser mbirub góor jigéen yi buñ ko wootee ci mim réew am na ay kilifa yoo xamante ni ñoom danañ daanu ndërmeelu mbala sax ñu jàpp leen tëj leen ayaatu kaso mu mel ni këni coow li daal dinay def xóor ci miim réew ñeen li nga xamante ni moom moo di mbirub góor jigéen yi yéeni kaay bii di vox populi daal dinay xëy niki tey ci police ak liggéey bu am solo bi ñuy amal mu naan ñu saisi police bi daal dinay gën a yokk ndax gannaaw ba nga xamante ni jàppoon nañ lu toll ci 3 milliards ci suñuy koppar lim bi daal dinay dem ba 5 milliards ndax yeneen i ñaari milliards la police bu Médina daal di teg loxo ci mbiru foo bi waa ji nag ñu ngi ko jàppee fële sa diwaanu Cambérène Cheikh Kane lay wuyoo moom moomee train de vie bu mu amoon dafa jéggi dayoo ndekete yoo lim doon jaay yëpp ay faux billets la dara baaxu ci yéenikaay bi di Les ko naan ñu liggéey bu am solo bi nga xamante ni police daal dina koy amal dees ba daal di leen di dàpp yéenikaay bi naan ñu commissaire El Hadji Ali ak i agent wa ñoom ñooñee ab camion moom mu mbëkk seen ndaamaar bi ba policier yu bëri jëlee ci ay gaañu-gaañu yéenikaay bi naan ñu wante taxul commissaire bi bàyyi benn yoon naam sax su fekkee ni am na ñenn ñi nga xam te ni jëlee nañ ci ay gaañu-gaañu ñoom ñooñee noonee lañ amalee descente bi sa kër defkatu ñaawteef yi ñu daal di leen di mujje jàpp yéenikaay bi duñu xamal sax ne njabootu defkati ñaawteef yi ñoom ñoo mujje woon songu ji policier yi ba ñi nga xamante te ne ñoom ñoo di waa sûreté urbaine nekk mission commando daal di leen di indil ab renfort ngir ñu mën see mucc ku war a bàyyi doxalinam bu ñaaw mi ci biir yéenekaay bi di l'observateur boo moyu sax fii lay jaaree ba ko ba faw ndax yéenekaay bi mi ñuy xamal ne fële sa diwaanu Pikine ab mbirub viol moom moo fa am way juru nit ki nga xamante ni jàpp nañ ne ab pédophile la ñu daal di yëkkati lu toll ci téeméeri junne teg ko ci kaw taabul bi ngir ci ni daal dinañ koy amal ñeel ab gone goo xamante ni ay atam mu ngi toll si juróom-ñeent maanaam 9 mu ngoog ñii ñëpp dañ leen waroon jàpp di leen di tëj ay 9 ay 9 ay 9 bañ jeex nday mari tey la bu subaak jàmm cant ngërëm ñeen la ko moom Mouhamadou Signor si ci li ëttu yëglekaay yi xëye tey moo daal di yëkk yëkkati sax jotaayu xibaar yi jaajëfal ko moom El Ibrahim Ka mi fare woon eh, ci xarale gi Ndeye Marie Daba moo leen doon dégteel yi la xibaar des leen di woy ak suñu programme ci www.sunukerfm.com cant ngërëm ñeel na leen kenn FM sur www.sunuker.com. Compétence. Indépendance. Crédibilité. Juste pour vous. Sunuker FM. La première radio africaine à Los Angeles. yéen Sunuker FM sur www.sunuker.com. politique, éducation, société, santé, religion, économie. Radio suñu Kër FM ngir gën a jege askan wi. ñu leen di bàyyi xel su nekk.